waaw kon mbokki Leewtoo TV ñu ngi ba tey ci biir Gambia rek fekk fi tamit ay mbër ay champion i faut ñu laaj leen ba xam moom luy lu ñuy def Gambia quoi caatu yaraax bi yaakaar naa ne Sénégal la jóge ñëw Gambia mbër maa ngi lay bëgg. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ziar ñëpp di gërëm samay ñaari waajur di sant ñëpp ñëpp di sant waa Sénégal bu baax baax rawatina yaraax ji ma jóge di sant waa Gambia bi nga xam ne ñoom laa fekk si ñu dara ma di leen nuyu Babacar waa Leewtoo di nuyu sama gars yi di nuyu waaw mais lan mooy làqatu bi Gambie lu fi nekk loo xam ne amul Sénégal. waaw loolu moom jarul sax ndax am bu ñu ñëwee Gambia moom noos andiwuñu fi leneen ñëwuñu fi liggéey ñu fi indi ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo xamee ni chaque jour bu ñu lay gis di xëy di la gis doo safee ndax duñu xam ci loo nekk mais boo raaree liggéey li ñuy liggéey boo ñëwee dañ xam ne changement am na loolu moo waral ñu ñëw xam nga suñu grand frère ñëw dalal ñu soq ne kaay dem Gambie liggéey ñu ànd moom mu ñëw daral ñu xam nga manqué wuñu dara nag ndax lépp taxaw nañu si ñu ànd moom ñëw fii Gambia ruq mu nekk mu dugal ñu ko waaw ñu ñëw di liggéey liggéey bu am anam waaw ñu ngi ko ci sant bu baax a baax waaw ñu ngi rafet maam ñu nekkee fii daal maanaam gisuñ ci leneen loolu mbégte rek waaw ñu ngi gis yokkute bu baax a baax. ci atu Yaraax ñaata combat def arène. waa def naa huit combat arène. ñaata victoire. def naa sept victoire benn défaite. kan moo la daan. Euh, Joson moo ma daan booy Joson. kañ nga mujj am ndam si lamb ji. daf daan laa mujjee daan mois de juin passé waaw. waaw dafa daan kële mburu yaraax ba loo sóod la daan après yow nga mer gembu. non du mer ngeemu sax moom dafa daan loo sóodu ñoo ne nañ ma jox caatu yaraax xalaatu moon naa bëreeg moom sax ñu ne comme làmb moo ñu tax a jóg ñu dem jël avance ñëw bëreeg moom loolu gis la léegi foo jëm ak koo bëgg a bëreel. waaw am naa grand combat maa ngi war a bëreeg serpent noir. waaw yaa ak serpent ku tëggati loola. Fallou Ndiaye la waaw. Fallou wax nga dëgg caatu yaraax serpent noir Fallou Ndiaye ñu koy nuyu kon day fi mu nekk nii moom xanaa moo tax waajal bi day daas da da métti ci yow. waaw ñun de waaw loolu moo ñu tax a jóg comme ay ndaw lañ moom te yoonu làmb dafa yéex ci ndaw moo tax fa ñu liggéeyee lu ne teg ndax làmb ji moom xam nga rek il faut ngay indi benn benn benn masse bi ñu xam ne tamit yaa ngi yaa ngi liggéey mais chaque jour boo yóbbu benn benn kii bii rek chaque jour rek dañ lay xeeb ci làmb il faut nga liggéey li tax ñu lay boole ci benn catégorie bi daal. looy wax sa supporter ak waa Yarax. waaw waa Yarax daal li ma leen wax daal mooy ñu xaar ma incha allah rabi ndax ñoom ñoo ma yónni yaa xam ti di sant fan sa club bu Caatu bi yëpp tamit di sant ñëpp waa écrit bi tamit ma leen di gërëm bu baax a baax di gërëm président bi ak coach yeeg ñëpp di leen wax ne Caatu Yaraax deful leen lu liggéey ngir ñëw indi Yaraax ndam bu rëy rëy ci kaw serpent. serpent loo ko yow est-ce que daan serpent na yomb ci yow. ndax dina yomb ci yow daan serpent noir. waaw làmb moom amul ndax daan kii dina yomb ci yow amul jël bu mu a yomb dóor mu daanu sax yombul loxo bi ngay dóor mbër mu daanu da ngay liggéey loxo boobu bu diisul mënoo dóor mbër mu daanu. waaw kon daan mbër moom yombul liggéey mooy daan mbër te ñoo ngi ci liggéey. incha allahu rabi yàlla ñu yàlla may ndam ci kaw. man it may nuyu waa Yarax yëpp rawatina ku mel ni Serigne Ndiour maa ngi koy nuyu depuis Italie. waaw Serigne Ndiour moom sama grand la bu baax a baax mi ngi nekk Italie doomu ndey la sodu waaw ñuy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñun ñoo seen ginnaaw daal nañ ñaan yi gën a yegg si incha allahu rabi waaw jaajëf waay mbër di gërëm tamit xam nga. waa Gambia bi yëpp yëpp yëpp franchement jàpp nañ ci euh, lu ci mel ne Cheikh mi taxaw nga xam ne bu ñëwee ba léegi noppalawul mu ngi dugg fu nekk di gërëm soq bu baax a baax mi nga xam ne moom moo ñu fat fii ñu jàppale bépp jën aussi nga xam ne ñu ñooy xëy chaque jour di nekk di gi jéeg ñëpp ko maa ngi koy gërëm di ñaan yàlla yàlla may ko combat waaw jaajëf mbër gis nga ñu ngi Gambia ah, te Gambia ku fi dugg ñi ngeen jaaxaaral si lamb Sénégal kenn du leen présenté bébé jën mi xam ngeen ko bu baax a baax di futur champion soq tamit man nañ ne ci espoir yi lamb yaakaar ëllëg la bokk ndax ku ne gis na ci niveau bi muy évoluer mais damay jëkk si bi Diène Gambia bi laa lay laaj lu ko waral ginnaaw mu la nuyoo. waaw bismillah ma seetaan ginnaaw mu sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur bu baax di ñaanal yàlla sama papa yàlla ko yàlla yërëm xare àjjana ak bépp papa bu mu fa fekk. di ñaanal yàlla suñu yaay ak suñu waajur yàgg fii ba ñu fekkee suñu njëriñ di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke. di nuyu sama waa ji ma toogal fi sama doomu yaay soxu di leen nuyu yéen tamit waa Leewtoo di leen nuyu yow grand Babacar di nuyu waa Medina nag tamit waaw di nuyu waa Medina yëpp waaw maa ngi di leen nuyu bu baax. soq maa lay bëgg di la ziar soq moom ku ko wax wax gàmm bi daa mel ni. waaw ah, Babacar maa ngi lay jaajëfal di wax onze billah bisimilah ina wali yàlla onze bisimilah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimal Axlaa di nuyu waa Kaaja Casamance gi ma dëkk di ñaanal suma yaay gudd fan ak wér di ko ñaanal suma soxna Jiga Diouf gudd fan ak wér yaram xam ma di ñaanal suma nijaay jiwi Joolaa yàlla bàyyi ko fi mu fekkee suñu njëriñ di ñaanal suma papa bi làqu fi mu tëdd suuf sedd si kawam di ko ñaanal bépp way jur di ko ñaanal bépp doomu aadama bu làqu tey jii nii. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ci barke yonent bi. nuyoo ngeen ba pare yow damay ñëwaat si yow Bébé Diène ci làmb ji daaw bëri nga. daaw bëri na waaw. koo daan. Tyson gi ngi néew laa daan. actuellement nii yaa ngi si ñaata combat arène. échange ñaata victoire. sept. Ah. Euh, sept victoire. est-ce que sa carrière comme ni ko waxee parce que fan yële wax nañ ko ci journal suñu lamb ba ma jàng ko sa carrière est-ce que heure bi ko na dépassé fi ah war na ko dépassé mais xam nga tamit yàlla moo ñu sàq xëy na ku nekk ak sa temps la rek waaw sa temps bu jotee amul kenn koo xamante ni mën na la tere dem te saa su ne man damay ñaan yàlla damay ñaan yàlla lu gën si man même sama yaay bu may lii daf may ne jullil nga ñaanal ñëpp te nga ñaanal sa bopp lépp looy am mu gën si yow bu gënul si yow tamit yàlla boo ko am te ñun amuñu lu dul làmb làmb la ñuy tarbiyu waaw. ci loolu laay dox lu ma si yàlla may tamit ma jël. waaw du nuyu sama mbokk yëpp du rawatina sama mbokk pël Fuuta yi non hiwraɗo noon salminaɗon ino yiide duwa o mi weltani kam fotano min mbiɗɗomo noon toronaɗon duwa toronoɗon allah wona champion wona roi des arènes wawi mais dañu gis ngeen bëgg Gambie lool lool di fi ñëw lu bëree bëree bëri daf fii dafa euh, li fi nekk daa nekkul Sénégal wala. non man moom wax dëgg fa neex yàlla mosuma ñëw Gambie Tivaouane Peulh laa doon dem sama papa Malaw Seras ren sama waa ji moom sama doomu yaay nee ma mbër dama bëgg ñu dem Gambie liggéey waaw ma ne ko no yow moom duma la bañal ndax ama moo ñu boole ama bu ñu pare Papa Sow de jour boobu la ñu xamante te jour boobu la ñu fasante te ñoo bokk sëriñ boobu léegi dañuy déggante muy ñëw gaam bi woo mu ñëw te xam naa fii tam suñ njëriñ la rek ndax fii gis nga nu mu demee. kon soqalandi fii. moo ma andi fii. manqué wuñu fii dara. lépp mu koy lijjanti. barke Serigne Touba jàppee ñu comme ay raxam ak ñu bokkal ndey ak baay ñooy solante yére ñooy defante lépp waaw. sa diggante ak waa Pikine parce que gis naa la nga jege Ama soq ngi nii toog mu mel ni yow ci mafia boobu ni ko gars yi waxee foofu nga bokk de. waaw man maay fo ndax sama papa Abdou Salaam moo waral lool bu may nekk xale boobu dugguma si làmb waaw. Abdou Salaam benn. waaw may liggéey si moom. ku si mel ni sama grand moom mu naar xam nga ñuy fasante kóllëre may liggéey si ñoom ñu nekk samay mag te ñooñu luñ ma wax loolu laay def waaw. actuellement ni am nga combat. non non amaguma. sax looy xaar. ah maay xaar du nuy promoteur yëpp. yeah temps yooyu ñu doon dox sama combat man ak Mbaye Guèye junior. mais Mbaye Guèye junior disul ci yow. waaw non yow Babacar yow xam nga ma yow Babacar man na yow dugg neen fu ne nga may nga may reporté. <laughs> ci mbapat yi may reporté say combat. waaw mais gis nga tam si bëre dóor bi tamit nu mu demee. yaa ngi wane yaa am na looy wane de moom vraiment. xam nga man sama combat mujjee bi sa Vandam lañ ma joxoon ñu dem ba mu des trois jours xaw ma quatre jours mu yàqu. ñu euh, door ma andil Tyson gi ngi néew. ma ne leen amul problème échange waa Medina pare nañ te dañ te dañ yaakaar si man ma dem am si ndam te dama leen di ñaanal xam nga mooy gën a yokk te di leen andil ndam di nuyu mbëru Medina yëpp. soo ko mbaa mbëggee si ñorul ko yàq. ah promoteur bi lañ déggaatul nag. kan la woon. sama manager moo moo woo sama sama fan su club wax leen ko. ñu ñu wax ñu ne d'accord nañ ba ñu waxtaan ci yooyu noonu. mais dëggaatuma leen faneetam tam maa dëgg man ak booy Dakar taxaw na ba démb rek ñu ma doon woo di ma ko laaj ma leen noo taxawul ko quoi ndax échange maa ngi fii waaw ñu ne dañoo dégg rumeur quoi. Ama Baldé amagul combat ñu ngi coow ay promoteur yaa ngi am na promoteur yu koy wutal combat mais ba tey amul adversaire yi dañ ko ñemewul wala. ah xam nga ni dañ ko ñemewul mbër bu toog def année balance. Ama ragal wala moom la gars yi ragal. Ama xam nga li ku xam na ni Ama ñeme lay def dox. bu bëree mu neex bu baaxoo mu neex. waaw te day ànd mbooloo day jaay kon xam nga ni làmb ji mooy tontu bi la ñu war a bàyyi. moog Modou ànd nga ci. waaw ànd naa ci ndax moo fi sës. ah moo fi. moo fi sës Modou Lo koo laa koy laaj koo koy jox yow. ah man yow laaj naa la ko ndax Ama moo fi sës. Mm. bëri na tanoori ci kaw yëpp. Mm-hmm. waaw échange Ama moo fi nekk Ama échange amul amul amul ay victoire rek la tegle. nag ci soq xam naa laay mujjee ah mën naa ne li ma lay laaj mooy lan moo tax ngay war a jóge Sénégal ñëw gàmbi woo say rak ne leen kaay leen ñu dem Gambie liggéeyi bëgg ñu jàppale ci sa combat la wala amitié ak ñoom la. waaw Babacar maa lay sant bu baax ci lool noonu nga ma laaj parce que tey am na détails yu bëri yu ma si dégg sax mais heureusement ba ñun yàlla daf ñoo def ay Baay Faal daf ñu ay taalibe Serigne Touba ñu jàng nit nu ñuy téye nit ak nu ñuy xamanteeg nit. ak respect bi nga war a jox doomu aadama pour mu delloo loxo ba teg la fi mu la war a teg Babacar man tey ñi ma war a bëreel ci làmb duñ mucc si man man du ma mucc si ñoom ndax yàlla noppi na tey bu ma xamante woon ak par exemple trente mbër ci làmb ñu nekk samay xarit may tëddandoog ñoom di jógandoog ñoom lii sama wërsëg ci làmb dama koy jël comprendre nga ñii samay rakk lañ dama am raq bu tolloog ñoom nekk seen moroom ma jàppee leen rakk ñoom ñoo ma gis jox ma cër def ma ni seen bopp Bébé Diène combat Ama Baldé Papa Sow lañ doon daje di contact suba ngoon ku dégg ba cëg ñu dem ba tey mu jur loo xam ne tey sekk na ak moom loo xam ne sekku ma ko ak caatu yaraax seeraas laa daje ak moom ci sama grand bu may jàppale xaadim Bamba xaadim ni mu damaa bëgg nga dimbali ma ci sama mbër bii ma ko xaadim mu ne ma naam ma ne ko billaahi wallaahi taalaahi te li ma wax su mu biir xol laa ko tibbee de waxuma ñoom kese de yàlla mi ma tiim xam na ni su ma doon dem états mën a yóbbaale sans mbër barki salaatul fatiha su leen yóbbuwul yàlla bu ma yegg parce que tey man maa nekk nit koo xam ne su ma la ëppalee juróom dama lay bëgg a dimbalee ñett dërëm yi wala ñaar dërëm yi man loolu laay dund loolu laa gëm topp kenn rànkiñ aw xol bu soxor ci kenn jàppaluma benn mbër ranking du ma daj mbër sax ba koy gis di mer wala dara parce que dama leen jàppee comme suma bopp ay adversaire lañ ay ndaw lañ dañuy am lu ñuy wët di ko yootu tey ku ci nekk sa gàlle moo tax ngay sonn sa bopp tax ngay sonn parce que ñaan nañ yàlla am njaboot suba goo xam ne dañoo war a am lu ñu leen yore ñii tey ñoo bokk génération maak ñoom boo déggee ma naan la samay raq lañ maanaam maa leen mag ci làmb comprendre nga mais ñoo bokk même génération ñuy tey lépp lu ma dund war nañ ko mën a dund fu ma tëdd war nañ fa mën a tëdd gis nga fi ma nekk Gambia fi fi nekk ak ay doomu aadama yoo xam ne ma ñëwee ba léegi seen loxo dañul si muy Kunta Junior moo ma fiy jàppale sam papa Jinna Mori ñoom Bildin ñoom Laay Mbay ak lees comprendre nga ak aada borom Gambi xam nga ak aji borom Norvège comprendre nga man bëri naa ay ñoo xam ne ay doomu adama yoo xam ne ñu ngi sonn ci man kon man war naa mën a sonn ci ñoo xam ne tey samay rakk te tey ñoom ñu génn ñëw Gàmbi làqatul liggéey ba tey buñ génnee nit naw leen tey buñ ko amee buñ bëree daan awma ci lenn lu dul mbégte pour ñoom yokkute bëgg ñoom ñu am yokkute fa ñu dëkk kee yaraax la dëkk kii Medina la dëkk boo xoolee tey bokkuma ak ñoom fuñ dëkk mun naa ne at bi liñ ciy gisee du bari mais sama xol moo sama yéene moo romb foofu ci ñoom tey bu ma sañoon balaa ñuy jug fii billaahi wallaahi ku leen gis naw leen nit ñi nag ku nekk na ànd ak ki nga xam ne moom la la yàlla booleel man yàlla ku ma booleel làmb mënumaa teree ànd ak moom ndax làmb day jeex dama jàpp doomu aadama ngir làmb te bu jeexee jeex na waaw loolu dootuma ci sax sori dootuma ci xuus parce que xam nga lu tax Babacar làmb du dara xam làmb du dara mooy lan làmb métier la boo ci nekkee bu ñu la fayee xaalis demal nga rayante ji nga fexe contrat boobu noonu jàll nga wuti leneen parce que làmb carrière am yàggul te carrière làmb quarante cinq ans la ñun war nañ tey mun a dem ba nekk leneen tey suba bay dimbali ay mbërum làmb yoo xam te lépp rafet xol boobu laa yor te dootuma ci waxati parce que soo ciy wax day ndiru ngistal te ñii lu ma leen defal sama bopp laa ko defal xaw ma ndax suba dinañ ma jëriñ wala naa leen jëriñ yàlla moo xam parce que ñun ñëpp kenn sotti leegul. léegi eh, loolu leer na nañ leeral bi am na solo mais sa diggante gàmmu gi moo tax nga ñëw toog fii di liggéey. ak ku dul gàmmu gay. mais gàmmu nga lekk avance am. jeex na léegi man dama am lu ma waxoon bi ma jugee ci TFP bi ma bëre daan mobile daan daan ma doomu daangu daan ma. ñëpp wax ji bari ma toog sama ruq jàpp sama ñaambur yaakaar naa yow ak Lamine yéen ma njëkk a dékk micro bi ma jógee ci TFM man la Babacar nga ni man naam ma ni la làmb dama cee sant suñu borom parce que fi ma ci amee defet xale laa xam nga fan la ma doon méttee ma toog ba mu leer ma ni man soog tey sama yaram mënatul am doole ma am ay defet yu ma métti foofu la ma doon méttee dafa may leer ni dootuma ko rattrapé waat mais tey xale laa tey sama yaram déggal na ma su ma ci tegee coono bi ma ci war a teg champion yi si làmb dinaa bëreek ñoom te loolu laa gëm moo nekk sama bopp Gamou Gueye moo fi ne ma jël ko du risque du risque xam nga lu tax ñun ay ndaw lañ tey am na xaalis boo xam ne duñ ma ko fay ma naan noo Gamou Gueye maa ko raw ak raw ma ko def naa ay preuve mu fay nañ ma xaalis bu ma jaral damay bëreek moom jàll dem sama yoon parce que du ma fi taxaw naan maa ko raw di xaar diw di def année balance du ma ko def parce que man kilifa laa ma yor njaboot goo xam ne dañ may yaakaar di ma xaar muy suma yaay bi mu sukk jur sama ay rak am naa soxna te am na xaalis boo xam ne bu duggee sama kër ma koy rejeté waat toog naan damay xaar ci ñaan laay mujj te bëgguma dem di ñaan kenn. kon boo bokkoo ci mbir yi ñuy proposé ay dizaine de millions ñuy bañ. non non déedéet. maa ngi dégg mbir yu ñuy fay kase yu bare bare ñu naan lu ëpp loolu lañ bëgg. waaw ñooñu seen compte fees te ku sa conte fees moom bu la neexee bañantu. ñun nag yàlla daa def ñuy ay nongo daara te xam ma li ñu yaakaar dafa ñi ñu yaakaar dafa bëri li ñuy xaar bëri man kase laay bëree de bëreewu ma palmarès réaliser quelque chose parce que làmb yàggul te nit ki ca ba nga amee ndaw loo ci amul bu la rëccee dootoo ko am. yàlla nañ ko yàlla defal wala mu defal ko bépp doomu aadama sax loolu lu baax la waaye dafa am tamit fu muy ñëw parce que li nga wax ci gàmmu gi leer li nga wax ci sa diggante ak sa rakk yi leer mais Pikine itam dafay yëngu surtout année bi jeex nii ci wàllum ay jàppal bàyyil xëccoo est-ce que Pikine noonu la ñu war a taxawee. noonu non ñu taxawee noonu mais man loolu munuma ci xuus de trop xam nga lu tax mus nga ñëw ci bisu Pikine te gisoo ma. waaw yow de defe naa ku woote wuyu si nga. ci open press yeeg ci làmb yeeg ci lépp ndax maa fa gën a nekk xale du dugg si ay détails li ma gëm mooy taaliba Serigne Touba la sama xol bi lu ñuul nekk si yéenew ma kenn lu bon ñëpp sumay frère lañ. ñoo ma jiitu si làmb ñooy sama kilifa ñooy sumay champion bu mu bu ñu amee làmb dama ci xar sama tànk tubéy ba fuuy fu ko yàlla mujjanteel nag ñu gëm yàlla xam ni loolu la yàlla dogal léegi loolu leer na nañ mais damay gis tamit soq maanaam ci côté Pikine gu ñu nee Eumeu Sène ne Ama ne Boy ne soq te yeneen mbër ne fa soq lu ko def star. non loolu du star. a ah, gars nañ star nga de. waaw nag léegi ah loolu moo tax ah, ma bàyyi suma soxna bàyyi sumay yaay ñëw Gambia nekk sama ruq di préparer sama bopp parce que damaa dégg ñu naan champion du préparer day pare te xale laa tey lépp lu ma teg sama yaram bi lépp lu ma bëgg ci làmb dinaa ko yóotu teeku dama laa waxoon ni la te fi méttee laa la ko waxoon te gis nga jour boobu xam nga lu ma yokk jom dama ni la Babacar nga ne maanaam ma ni la fii ñetti at xale yi téye làmb su ma ci nekkul p deux laay nekk te ñaari defet laa tegale après dama seetaan commentaire yi si suuf dégg ci ay wax yu bari ndax man si heure bu ma defee communication damay seetaan commentaire yi di déglu li nit ñi di wax di liir li ñuy wax di ci jël conseil di xool li nga xam ne ñoo may wax li nga xam ni mooy li gën pour man ma téye ko ñi nga xam ne dañ may xalab ndax faaraluñ ma ma téye ko parce que lépp leçon looy doon ci doomu aadama parce que nit ki bul yaakaar ne lu neex rek nga war di dégg ku ñuy tàgg chaque jour munul arriver parce que day yaakaar ni manga nga fa waaw. loolu ngay bañ Ama koo koy jox dégg naa adversaire ku te fan yii en tout cas de li ma koy xamal. maa ngi koy ñaanal combat bu rëy. Ama moog ñëpp làmb la. li Bébé Diène wax dëgg la. bu bëree mu neex. bu feccee mu neex mbëru amateur la. am na mbaru amateur yoo xam ni. làmb duñ ko sooxel. te mu ngi fi pour ñëpp mu ngi fi pour Gris Bordeaux Modou ñoo ñëpp ay adversaire am lañ Tapha Tine Ama koo ko jox mu bëre. Modou Lo wóor na ci Ama. ankay wóor na kay champion la. Modou ba muy toll fii gars yi dañ ko jox loxo mu bëreeg ñoom yàlla dimbali ko mu daan leen nekk tey roi des arènes kon war na mun a jox booy loxo bëreeg ñoom lool du dara. man booy lay jox loxo. man mii sax war na ma jox loxo. Modou Lo yow. waaw bëgg naa. damay rêvé pour bëreeg ñoom te xam naa ne moom bokk na ci mbër yoo xam ne su ma góorgóorloo dinaa bëreeg moom. waaw ndax dafa am de vie waaw am na hygiène de vie boo xam ne tey mun na bëre bërewaat vingt cinq ans te du jeexal te xam naa ne man tey su ma li ma gëm nii jàpp ko mu nekk sama biir xol bi su ma ci góorgóorloo dinaa bëreeg moom. gàmmu gi lu koy daan. jom fit fulla fayda liggéey pire. yéen ñaar ko fit. man de xam naa ne man bu fekkente ni wàllum fit mooy may mbër ndam. dootuma ñàkk ndam ci làmb ku dàq bëri yéen ñaar. moom Gamou Gueye moo dàq bëre ku ëpp doole. moom moo ëpp doole. kon loolu lu tax nga jël avance am. gëm ni am naa doole mën naa bëre xale laa lim mën mën naa ko lu ma mën mën na ma xam ne bu ñu bëree dina neex ndax làmb amateur la juróomi at ba léegi ñu ngi dox sama combat Gamou Gueye amul promoteur bu ko doxul. bu yàqoo fii yàqu fee yàqu fee yàlla dogal na taxaw na xale bu am jom la tàgguma ko nag de man xam naa ni champion laa jël ndax tey bu ma jëloon koo xam ne bu ma ko fiiree mu tëdd sama koñ laay toog bu ngoon jotee ma dem géej dawi ñëw toog ñu arbitre sifflé ma jàpp ko daan ko xooli keneen mais xam naa ni champion la ndax dama ko seetaan mu am fu mu jaar ak samay moroom bërëg ñoom xeex ak ñoom gaynde la der la bu ñu bëree rek mu neex ma nag moom. léegi looy tàggoo et looy wax promoteur bi nga xam ne moo tëgg seen combat di Thiam production Baba Diop ñu koy nuyu di ko ziar di promoteur bu bees ñëw choisir leen soq ak Gamou Gueye loo koy wax ak looy tëjee. ah tëgg bi mu tëgg soq de ñaanuma yàlla mu rëcc ko te du ko rëcc ndax mbëru amateur laa te xale laa